ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين nu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala bi mu ñu defalaatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci suñu dars bi di wax ci buntu bu am solo boo xam ni buntu bu ñu soxla la soxla woo la muy silsila boo xam ne ñu ngi koy def ci alxayaatu zawjiya assaida silsilatu alxayaati zawjiya assaida muy ay bind yoo xam ne dañ koy def ci waxtaanee naka lees mën a def ba taxawal dund goo xam ni ci diggante ñaari way dencante yi di sëy dund gu dal lay doon gu neex lay doon gu méngoo ngërëmal sunu boroom waaye ak bëgg-bëgg bakkani doomu aadama te la nga xam ni mooy la baax ci moom kon tey foog naa mooy sunu ñetteelu bind ginnaaw boo xam ne ñaari bind yi weesu gisoon ngeen am njàngale ci nécessité goo xam ni daf ko nekk nécessité moom sëy ci ku gëm yàlla seetlu woon ngeen nit ci dugg ci néegu sëy bu ko suñ borom defalee tawfiq li mu ëppalee chance ci tàbbeegul ci néegu sëy dafa bari lool bokk na ci yooyu même ci yaaba sax moo ko koy ëppale kon loolu rek bu amut woon lenn loo xam ne mën naa jañax nit ki ci tàbbi ci néegu sëy mu gis ni ci tàbbi ci néegu sëy moo koy ëppale tiyaaba ndax toppatoo borom këram tiyaaba la fóotal ko tiyaaba la ànd ak moom sëy tiyaaba la amal ko doom tiyaaba la toppatoo njabootam tiyaaba la ila axiri ma tazkur ala kulli xaal dund gi lépp mën naa fas sukkaliku nekk ay tiyaaba loolu nag jàpp naa ne ki bëgg yiw te fiir ci diineem su ko déggee maanaam xeeti gàllankoor yi nga xam nit ñaa ngi koy teg ci buntu sëy loola moom dafa daal di bind ñetteelu bind bi tey nag ñoo ngi koy def ci tomb boo xam ne néew na sax nag lu nuy faral di gis ci sunuy waxtaan di ko ci faral di waxtaanee muy lu jëm ci bëgg bëggante ndax lislaam ci jëmmi boppam bàyyiwut lenn loo xam ne daf nu koy bàyyee naan ah bii moom awma lu ma leen ci wax dem leen ngeen jëggaani ko feneen dem leen liir ay roman wala ngeen déglu ñeneen ñu waxal leen ci déedéet lislaam amut loolu maanaam l'islam da ci diine ju complété ju matale joo xam ni amut leen lu nit di soxla islam nan la ah lii de moom préparé wu ma ko woon demal nga seet foo ko wëtee ji kon jullit yi nga xam ni am na ay yëpp ci seen mbiru diine yu nuy jëggaani feneen nanu yëg ni juum nañ njuum te lu rëy l'islam moom bàyyiwut dara bëggante nga xam ni mooy mën a lal sëy borom xam-xami l'islam yi sunub yonente alayhi salatu salaam bàyyiwu ko noonu rek nga xam ne nit ki day ñëw rek daa ne ah lii dem naa seeti ñoom diw lu ñu ca wax rek ma xam ne noonu la bëggante nag lu garaaw la la ko tax a garaaw mooy ay mbir la caa nekk yoo xam ni yu doy waar la bu ca nit tàbbee te xamu ko wala nit toll ca te xamu ko mën naa daanu jël bu rëy te du ko yëg loolu la noonu lislaam yi xam ña nga cay wax waykat yi xam ko ña nga cay wax bindkat yi xam ko ña nga cay bind théâtre yi kat yi xam ko caaxaankat yi gis nga ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi ciy wax li ko waral mooy da di mbir moo xam dafa am solo lool ci wet sëy boo xam ni ñaar ñoo ko war a séq te dañoo war a déggoo déggoo gu sax dàq di yëkkateendoo di wàcceendoo bokk benn néeg war a bokk ay xalaat tey diisoo ñooñe jàpp naa ni li ñuy tuddee bëggante bu amul seen diggante musiba ju rëy am moo taxit ki tàbbi ci sëy te ki mu àndal bëggu ko loola mettit du ko gën a rëy moo tax mbir la moo xam ne bu ci ay sentiment dugal nit bëgg lan wax wala ñu ne nopp bokk ndax nopp moom mooy baat bi gën a wóor wolof yi sax léeg-léeg nag boo nee bëgg duñ ko garaawal te boo nee nopp ñu garaawal ko fekk bëgg ci boppam bi tax ñuy wax ci sëy bi ñu soxla ci sëy nopp la waaye du bëgg li waral loolu mooy nit mën naa bëgg baayam mën naa bëgg yaayam mën naa bëgg frère am mën naa bëgg sœur am mën ngaa bëgg sax sa bokkum julit ndax bëggante ngir yàlla sax na ci sunna bal li lay wan ne sax na ci yeneen bi nee na même nit ki su fekkee dafa bëgg bokkum julitam mu wóor ko ne kii dama ko bëgg ngir yàlla na ko ko yeggee na ko ko wax xam nga loolu am ndigle la nit ki nga xam dafa bëgg bokkum julitam bëgg googu may wax nag bokkut ak bëgg gii may wax nga xam ne mooy jur nopp pour sëy maanaam nit ki dafa gis mbokkum julit bëgg ama am na lu tax mu bëgg ko xëy na jaamu yàlla moo tax mu bëgg ko xëy na da koo gis rek yàlla def mu bëgg ko yooyu sunna bokk na ci sunna mooy nga wax nit ki ah man de bëgg naa la ngir yàlla moom it mu delloo la yàlla na la yàlla bëgg topp la yow it comme ni nga ma soppee xam nga loolu ci sunna la bokk bëgg googa nag moom julit mën na ko def mbokkum julitam nit mën naa bëgg kenn te fekk ki mu bëgg sax bëgg ko pour ak nobel ngir doon ànd say déedéet kon bëgg mooy départ bi nga xam ne bëgg mooy ndey ji jur ak nobel ndax nit mënoon nag koo bëgg waaye nag du caagi ni képp koo bëgg it dañ koo nopp xaw ma baat yooyu may faram fàcce mi ngi leer wala déet maanaam nopp balay am bëgg da koy jiitu du caagee ne nit ki képp kum bëgg rek dañ naan ko kii da koo nopp déedéet waaye nag nopp moom kenn du ko def kenn lu dul ki nga fas yéenee sëyal ki nga bëgg a sëyal kon bëgg nit ki mën na koo def koo xam ne mbokkum jullitam la nii sax nag amaana sax mu nekk jàmbur ca yow waaye bëgg googu bu amee nag ca kaw bëgg ca lay lal lay lal taayu nobel bi saxee lan mooy bëgg ak lan mooy nopp ak lan la ci lislaam wax ci am njàngale baat bi ñu tuddee bëgg muy alxubbu ak almahabba ci langue arab ñaari baat yooyu bi maanan waaxid ñoo bokk benn maanaa bu ñuy teg borom xam-xam dañuy wax ni al maylu daaimu bil qalbi al haim bëggeel wala mbëggeel jéng ak xol la xol mooy jéng jëm ca ka nga xamante ni moom la bëgg nga xam ni sa xol bi kat da nga tey taf diw moomee nga xam ni fat nga ko ca bu dee lu baax da nga ko koy yéene bu dee lu bon doo ko ko yéene bu amee problème da nga koy yëg bu amee naqar da nga koy yëg parce que fat gi nga ko fat ci sa xol moo ko waral am nañu ni muwaafaqatu lxabibi fi lmashhadi walmaghib mbëggeel mooy dëppoo wala déggoo ka nga bëgg moo xam bu ngeen dee gisante moo xam gisante wu leen lépp yéen a ngi déggoo lu tax ngeen di déggoo parce que dafa am place ci sa xol nga am place ca xolam am nañu ni mooy ak dëppoo goo xamante ni dafay mel ni yàlla daf leen koo bindee yéen ñaar ngeen dëppoo ba dëppoo googaay waral du ngeen bëgg di xëccoo tey bu xëccoo naroon a am sax nga far ko bàyyi yow bu ngeen xëccee buum gi tag dëgër da ngay préféré yow nga bàyyi wala moom mu préféré bàyyi am nañu ni mooy fexe ba sa xol muuru te fekk la ko muur mooy cofeel gi nga am ci diw sàngam mooy koo xam ni foo mën a nekk rek boo yeewoo yaa ngi koy xalaat bu ngoonee yaa ngi koy xalaat boo déggee tur wu nu roog wotam sax sa xel dem ci moom maanaam porox ndoll su bët mën a am ci xol ba xol mën a xool rek su xoolee lool lay gis am nañu ni mooy nga may sa jëmm ji ak sa cër yi yépp mu jëm ca ka nga bëgg loolu mooy cër yaag xol baag fat nga ci sa xol fat nga ci say cër booy xool moom ngay jeneer booy booy boo boo xoolee lu dut moom sax day mel ni moom ngay gis am nañu ni dar da ngay dem ba daanaka amut benn cër buy def ci sa yaram wi lu dul day yëg bëgg gi nga bëgg diw yow am nañu ni naarun yaxriqu min al qalbi tàkk tàkk la loo xam ne day lakk ci xol maanaam mbëggeel ci boppam tàkk tàkk la loo xam ni dafay jaf di boy di tàkk ci sa xol tey bu nit ci amee naqaru xol na mu koy yëgee ci boppam bu amee cofeel googu di bëggeel noonu la koy yëgee ci xolam day sentir ni moom kat fi ne dafa mel ni fiiraange ni muy mel ci xol mer di ko def ci xol mbëggeel noonu lay def ci xol bi su ko defee nit ki fu mu mën a toll rek maanaam xelam dafay dem ca kooka nga xam ni moom la bëgg am nañu ni mayluka ila mahbubatika bi kulliyatik mooy jéng goo xam ni da nga koy jéng jëm ko ca ka nga bëgg ci sa lépp nag maanaam yow da ngay dem ba mën doo mën a juuyoo ak moom xam ngeen damay faral di wax ni bëgg li ko tax a garaaw mooy gis nga nit ci bu bëggee dëgg du mën a juuyoo kam bëgg am na xutba ju ñu defoon ci ndax ñun matal nañ dëgg dëgg dëgg bëgg gi ñu war a bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci misaal yi ma doon joxe damay wax ni al muhibbu la yastatiu al muhibbu la yuxaalifu xabibahu li annahu la yastatiu te tom bu am solo ngoo dinañ ko soxla tey waaye dinañ ko soxla ci lu mel noonu fan lan toll ci bëgg yàlla akub yonenteem ma ni al muhibbu aji bëgg ji dëgg laa yuxaalifu xabibahu du juuyoo kam bëgg lu tax mu ni li annahu la yastati parce que du ko mën doo juuyoo ki nga bëgg lu tax parce que mënoo juuyoo moom mënoo ko xam nga mbir mën naa ñëw sax fekk yow man nga ko man nga ko da nga koo defut waaye muhibbu moom ku bëgg ci moom du juuyoo kam bëgg la ko waral mooy du ko man kon bëgg googu nit ki ki mu bëgg dëgg dëgg du bëgg a juuyoo moom maanaam benn masala bu ñëwoon ngeen nar ci xëccoo sax bu juyoo naree am rek yow da ngay préféré sa bëgg moo lay obligé pour nga bàyyi moo tax ma ni bëgg lu am solo la ci sëy gis nga forcé may la diw wala ay sentiment dugal la ci wala say xarit sëy nañ rek nga bëgg sëy yarit wala boo yu yu yooyu nga xam ni mooy faral di xew ci jamono yooyu moom moytu nañ leen lu ngeen man mu tàbbal leen ci sëy nit moom waxuma la bëgg waaye na def magum bëgg na àgg fa ñuy tuddee nopp doo ko dugg ci sëy am na ñu wax ni bëgg gi day yegg ba yow da ngay préféré bu ñàkk amoon bu mbir amoon ñàkk nar a am yow da ngay préféré ki nga bëgg moom na am yow nga ñàkk yow maanaam ñàkk li muy metti metti yow mën nga kaa muñ lu tax nga di ko muñ mooy cofeel gi ne ci sa xol moo lay permettre nga mën a muñ bàyyi sa soppi moom na am am na ñu ni da ngay dem ba daanaka yow dootoo amati sago ci sa alal ndax moom mën ngaa yëkkati sa alal jox ko te plaisir nga koy defee bànneex nga koy defee parce que da nga koo bëgg man ngaa seet lu valeur jox ko ko te yow loola daanaka moo ko sagar ñooy bokk yam ci yow doo ko yëg valeur ba parce que maadaama diw mi ma bëgg laa ko jox rek mbëggeel googu loolu nag li may wax nii lépp nag manees na ko utiliser ci l'islam la ko utiliser ci ci caacaay it nag ndax ñi nekk ci caacaay lii la ñuy jëfandikoo ñi nekk ci diine it nii la kon lii may wax du caage ni kenn da koy déggee buntu xanaa lii da caaxaankat yee ko moom déedéet kenn du ko déggee lii moom jullit ñi maanaam lii moom muy bëgg ci anam bu gën a faram-fàcce wu léegi nag ñi da koy jël xaw ma dañ koy islamiser xaw ma def ko ba mu ba mu méngoo ci l'islam wala boobu nga bàyyi ko mu nekk tënku ci caay-caay mandarga yi wane ni bëgg am na muy fériféri joo xam ne xol da koy fériféri te férféri jooju dara du ko mën a tax a dal lu dul daa gis ci mu bëgg wala mu dégg kàddoo xaw ma loolu ndax leer na wala dégg férféri joo xam ne xol daf koy férféri férféri du am ak dal nga xam ne kii waa ngi naan sofit di sëba ka dal mu wóor la ne kii dafa am lu ko gêné gêne boobu nekk ci sa xol lenn rek mën a tax mu wàcc ci sedd mooy nga gis ci nga bëgg wala nga dégg kàddoo maanaam daal pérpéri jooju saa boo déggee kàddoom rek day daal di wàññeeku soo gisee jëmmam tamit day daal di wàññeeku bu la sowee rek nga commencé waat di pérpéri kenn ci waykat day wax ni yaa muqiman fi xaatiri wa jinaani wa baidan an naadiri wa ayaani anta ruuxi in kuntu lastu araaha fa hiya adna ilaya min kulli kulli daani mu ne yow mi nga xamante ni yaa nekk ci sama xol ma di la xalaat nekk ci sama janeerukaay ma di la janeer nga sori ma lool ci sab saab gis yëgal ni yaay sama ruux ba dem naa ba su ma la gisu sax nag doonte gisuma la li may jege jege jege yow ci yi ma gën a jege ca nga bokk yow loolu nag moom waxi waay la rek moom l'islam dox bu ma waykat yi ñoo doon wax yi waay seeni waay rek nga jël ko leen istishar keneen ki dani xiyaaluka fi ayni wa dikruka fi fami wa maswaaka fi qalbi fa ayna taxiibu yow de say ja sa jeneer sa image saa su ma yeewoo mi ngi ci samay bët saw tur nag moom moo gën a jege ci sama catu làmmiñ man damay juum sax di la tudd far loolu day dal nit léeg-léeg mën ngaa bëgg nit ba ngay woote sa far juum daal di woo ko nga bëgg loolu day dal nit waaw day dal nit jigéen ñi ñu garaaw lañ léeg-léeg ñu jàpp ci góor gu yore ay soxna gis nga góor léeg-léeg bu yore ay soxna mën nay feeñ mën naa feeñ ci buntu boobu te du ko yëg mooy man ngay juum di wooturu kenn te fekk xëy na am na lu tax jigéen ñi nag buntu boobu moom garaaw nañ ci lool maanaam góor gi ci deful ndànk rek mënees na la cee képp kon nit ki mën naa dem ba ki mu bëgg dafay nekk ci catu làmmiñam nga xam ne buy waxante sax wax ja mën naa dal di génn te du ko tey kon mu ni wa maswaaka fi qalbi fa ayna taxiibu yow yow yow laay janeer su ma xoolee man yow laay gis ñaareel bi mooy su ma su may wax yaa ne sama catu làmmiñ mu ni yow bu fekkente ni da ngaa tukki sax moom demoo demoo fenn mu ni même boo tukkee sax demoo fenn yaa gis parce que yow laay tudd yow laay waxal kon bëgg ci jëmmi boppam mi ngi noonu bëgg nag bu ma nee bëgg borom xam-xam yi wax nañ ci wax yu bare bari yoo xam ne daanaka dama koy junj rek jàll ndax taxumaa jóg lu mel ni al hubb lu mel ni al sharaf lu mel ni al sabwa lu mel ni al ishq ak yeneen ak yeneen ci ay baat yoo xam ne arab dañ koy jëfandikoo benn bu ci nekk nag am na maana benn bu ci nekk am na maana wala am na ñu ko moom ci nit am na bu ñuy tuddee saraf saraf moom su ma ko doon teggi ci wolof tekk ci wolof mooy bëgg ba dof maanaam saraf bu ma woon baat bu ma ko mën a jegee ñe la taqrib ci wolof mooy bëgg ba dof moom la yàlla tudd ci suuratu yuusuf te jigéenu buur ba digganteem ak yuusuf mu ne qad sharafaha hubba mooy daa bëgg yuusuf ba dof loolu nag lu garaaw la mooy nit ki dem ba bëgg ba xam nga buñ ñee dof maanaam waxin la woo xam ne daanaka jëfi dof rek ngay daal def nit ki day dem ba daanaka yow li muy def moom doonte nit la nag moom waaye jëfi dof lay def kon la waral muy def jëfi dof ji mooy bëgg gee ko yóbbee nga xam ne nit ki saa bu demee ba yegg ca barax booba qad sagafahu xubban kenn ci borom xam da ko teg ay qad axraqa qalbahu al xub mu ni bëggeel fi ne mi ngi tàkk di lakk lakk ak xolam kon ak sagaf borom xam-xam yi dañuy wax ni bokk na ci xeeti bëgg yi garaaw nga xam ni daanaka moo ko dogeel benn la am na lu ñuy tuddee al ishq timit ishq ishq timit dañuy wax ni asaddu min al xubb moo gën a tar bëgg wax naa ni nin bëgg nit ki mën naa bëgg baayam yaayam magam waaye nag bu loolu bëgg amee nag te kaw bëgg nag suuf si ñuy tuddee bëgg ca la yii di sax muy nobeel ak saraf ak isq ak yëpp ca lay amee isq nag mbëggeel gu garaaw la gis nga isq saa bu ko nit ci defee léeg-léeg nga gis koo xam ne dafa teqali ko sagoom jëm ci góor ñu jàpp dañ ko liggéey te kenn def ko dara dara lañ ko def waxuma nag saa bu amee léeg-léeg dana am léeg-léeg am na lu ñu tuddee nopp te loolu jigéen ñi ngeen bàyyi ci xel góor ñi am nañ xeeti caay-caay bu ñuy def boo xam ne loolu nopp la tudd sëriñ yi caay-caay yi xam nañ ko turu ku góor ki ngay jigil ak turu ku jigéen ki am jenn laaya ju nekk ci alquran laaya joo xam ne ñaari miim ñoo ca nekk xam ngeen miim dafa ron nii nga jël turu ku góor ki dugal ko ci miim bu njëkk bi turu jël turu ku jigéen ki dugal ko ci miimu ñaareel bi xaatim koy xaatim ñun xam nañ yooyu ay ndonga daara la waaye loolu yëpp caay-caay la gis nga loolu saa bu amee ndaw si day mel ni xaj bu topp si ginnaaw borom loolu mi ngi faral di am ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni mënee su ko wax waaye nag léeg-léeg mu dal nit fekk kenn defu ko dara saxafa ko topp xam ngeen ni Yuusuf deful woon dara ndaw sax moom bëgg ko sax topp waaye ndaw sa dem na ba dopp ba doppati ngir topp Yuusuf loolu moo daloon benn waay bu ñuy wax Majnuun Layla te xam ngeen ni bëgg day yegg ci dof lowaate maanaam bëgg day yegg ci dof lowaate am na ci façon boo xam dañ koy tuddee al junun no- dox nag far na dox nag benn yoon li wala di naan fas na dox nag moo tax léeg-léeg boo xamut yi da nga yaakaar ne am na yoo xam ne da nga yaakaar ne dañ koo liggéey dañ koo xaatim dañ koo lii dañ koo fekk déedéet am na ci yoo xam ne kenn defu ko dara am na ci xeetu bëgg yi yoo xam ni ak ndox la moom ba doxooral benn waay bu ñuy wax majnun layla mooy dofuk layla bi moom looloo ko daloon boo demee ci siiru alaami nubala nga xam ne imam ju mag ju ñu xam ci wàllu siira nga xam day wax dundu salaf nga xam ne li ñuy nettali ci dundu salaf yëpp daanaka fa lay génnee soo demee ca quatrième volume ba ca page bu njëkk ba këm ci njëkk a tarjamaal mooy maj majnun layla mooy dofuk layla bi gars yi dañ koy wax naan ko yow de layla dof loo na la mu ni ay après xam nga si ne ay après dawut dawut dara moom mu ni qaalat junintu biman tahwa fa qultu laha al ishqu acdamu bim mimma bilmajanini al ishqu la yastatiqu addahru saaxibuhu wa innama yusaaricu almajnunu fi lxiin ah yow sa waay sa ndaw si dof loo na la de mu ni et après bëgg def xanaa xamoo ni moom moo gën a garaaw sax li dox di def dox yi moom mi ngi nangul boppam nee na moom gëm na ni bëgg gën a garaaw ni dox di def ni ndox di def dox yi ndax nee na dox moom léeg-léeg li wala fi naan dox du wér dana jël conseil xam ngeen dox léeg-léeg mu jékki-jékki def wax waxi nit loolu léeg-léeg mu am dox mën naa jékki-jékki mu wax waxi nit waaye nag nee na kon dox mën na ximiliku ci xam gëmu xam waaye nag ki nga xam ne yàlla daf koo natt mu bëgg moom du ximiliku du ximmili xam nga ndox ndox ci boppam li wala fi naan ndox rab yi du wér day jël conseil loolu day am léeg-léeg ndox mën naa jékki-jékki ba mu yàgg am xelam xaw a dellu si benn waaye mu ngi may nettali nee na dafa amoon benn dëkk waa kër gi xëy war a dem ci benn ngénte ci beneen dëkk dox bi daal di ñëw ni leen dox bi ne ci kër gi mu ne waaw da ngeen may yóbbaale ca ngénte la bu ko defee su ma demee ma ray liir ba gaa yi ni ah yow kay kon kenn du la yóbbaale fii lañ lay bàyyi ci kër gi mu ne kon ma taal kër gi ñu ne ko ah ñun de kon jaaxle nañ dof bi dof mooy wax de dof bi ni yéen a dof dëgg dëgg dëgg dëgg yéen kon xamu leen nu ngeen may def ñu ne ko dee xamuñ ñu lay te xool mooy wax de muy da ngeen may jàpp wut buum gu dëgëri yeew ma ci garab gi su ko defee du ma dem ngénte la ray dëj ray lii ba du ma taal kër gi xoolal xoolal xam nga kooku li ñuy wax li kori nit la gars yi jël ko yeew ko ci garab bi benn moroomam boppam daal di koy romb daal di ko waaw sa waay looy def fii mooy xanaa rëy làmmi ñi rek rëy làmmi ñi rek ndax maa wax lii waxaat lee ñu daal di may yeew léegi xoolal wax ji ni mu tàmbalee ba mu jeexal lépp waxi nit la lépp te kooku dob la ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni dof da koy faral di def waaye nag bu fekkee ki bëgg moom du ximbaliku déedéet moom du ximbaliku moom gis nga majnun layla dafa yeggoon fu garaaw nag ci asq muy bëgg baat boobu di asq la doon jëfandikoo doon na wax taasaqtu layla dama nopp layla wa hiya zaatu zuabatin bon mi ngi am ñaari jubb xam nga gone yi layla dañuy lépp lépp yoo xam nii la ñuy def ñaari jubb comme béjjén noonu nee na maa ngi fàttaliku ba ma koy nopp booba gone gi noonu la toll walam yabdu lil atrabi min sabiha hajmun nee na booba xale bu ndaw la boo xam ne ay ween sax amagu ko nee na saxiira yi ñu nekk ñaari goor nara al bahma di sàmm gàtt ya lam ca teg nag moo moo moo doy waar mu ni fa yaa layta annana lam nakbur walam takburil bahmu mu ne yàlla daa waroon a def du màgg du ma màgg xar yi duñ màgg kenn du leen rey ñu continuer sàmm rek maag moom ca àll kon mbir te lii ay réalité nekkul ay lépp maanaam loolu lu am la moom loolu la doon wax daf doon wax ni maanaam su su ma yàlla defaloon ndaw si du màgg mu nekk gone man du ma màgg ma nekk gone xar yi duñ màgg kenn du leen rey moom daal saa buñ xëyee rek ñu ànd dem sàmmi ca àll ba daf da doon ànd ak ndaw si di sàmmi bëggee bëgg Layla dafa demoon ba yegg ci moom foo xam ni nee na dama daan romb ci pegg kër jàmbur ma dégg kuy wax Layla mu wóor ma ni Layla bi muy woo du saa bopp mu ni ma daanu xam mbir mi yeggoon na ko foofu maanaam da lay wax ni kon bëgg lu garaaw la mi ngi wax na wanaadin yunaadi is nahnu bil xiifi min munan nee na ànd naag sama bàyyi dem ba màkk nga xam ni barab bu sell boobu nga xam dañoo war a aj mu ni ma am kenn ku naan e layla mu ni man wóor na ma ni kami woodu saaba waaye nee na wax gi mu ko wax rek nee na daaneel na ma kam ci pegg kaaba bi xam nga kooku moom sori na trop gis nga te kii ñu yow ab julit la woon maanaam mbir yi dafa yegg koo xam ni dafa mën a jéggi dayoo ci mën a yóbbee nit ki moo tax léeg-léeg mën ngaa gëm yàlla nekk jaamukatub yàlla woorkat waaye bu la yàlla nattoo lu mel nii day ah mën naa métti ci yow de mën naa métti léeg-léeg nag lu mel nii nii da koy yàll parce que bu yëgsee ba nga yëg ni yow kat mi ngi lay bëgg a fitnaal da nga ko war a ne freiné wala nga wut sa pexe waaye defoo ko ba ba xëy ëpp la doole yonent bi dafa toog benn bis ba mu yàgg mu ne Abbas kaay te li mu ne yonent bi alayhi salaam mu ne Abbas kaay Abbas ñëw mu ne ko xoolal kii benn faala bu topp ci benn jigéen di jooy bu ñuy wax mu rëy mu topp ci barira di jooy xam nga lu muy jooy barira jaam la woon moom mu nekk jaam ñu nekk jëkkër ak jabar ñu koy xëy jaam bi gore xam nga jaam bu goree sañ naa tànn mu tànn buñ nee ko bëgg ngaa kon ni sëy bi mu kon ni su nee daa bëgg sëy bi tax comme maadaama gore na sëy bi day tax biñ ñu tànn loo bari na bari na muy déedéet moom dootul sëy ak mu gis nañ tax sëy bi te fekk mu gis doo la ci sëy bi ndaw si ni ko damay takk samay bagage dem ku góor ki ne ko ngir yàlla bul dem coow li ni kur ndaw si continué dem takki bagage am génn ku góor ko topp te ginnaawam di ko si mbub may jooy xam nga loolu te xool ñi may wax ay saxaaba la te te loolu fi mu nekk nii tey dëgg la sax ak doyee di la nag wax dëgg yàlla ci nit dem ba jigéen di ko toll foofu loolu moom jullit da ko war a moytu di ko boppam waaye bu daloon nit it nag ñun dañuy jàpp ni kii loolu mooy wane ne amul iman loolu mooy wane nangam fekk loolu jotewut ak affaire iman ba yàq iman dara nit mën naa am iman ba ca kaw jooyal jabaram kon mbir la yoo xam ne faw nit ñi xam yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu laajee ñu wax ko histoire bi noonu la dafa ñëw ci ndaw si ni ko sawaay fii ngaa dimbale ci nga ànd ak moom ndaw si ni ko su fekkee da nga may forcer pour ma dem ànd ak moom dinaa dem ànd ak moom waaye su fekkee forcer woo ma day man doyal naa yonent bi ni ko man forcer wu ma de mbirum sëy gis nga foofu nañ ci bàyyi xel yonent bi bu ni woon ndaw si demal nga sëy ak moom dana sëy ak moom waaye gis nga mbirum bëggante ak nobante kenn du ci forcer yonent bi ni ko déedéet man dama doon sinu rek sinu mooy def intervention ndaw si mu ne ko bu dee sinu dong la moom kii moom doyal naa ci moom gis nga fekk góor ci ndeysaan mi ngi topp ci ginnaam di yërëru ay rangooñam kon maanaam mbir yi ci jëmmi boppam dafa yegg foo xam ni mën naa sonal nit lool bokk na ci yëpp ya tax lu jóg nag mooy al wudd al wudd mawadda nga xam ne moom laa mën a teg ci nobel nag nga xam ne moom yii passé yëpp nit ki mën naa am ku mu bëgg fekk baayam la ndax xam ngeen nit mën naa toll baayam fu fu kawe nit mën a toll yaayam fu kawe foo xamante ni ah sa yaay sa baay say frère say sœur nga bëgg leen bëgg gu jiitu dayoo koo xam ni su dul woon ak kii sa ku la faj arma la dañu yaakaar ni kii sax dañ koo nox te fekk nobel amul foofu bëgg kese la waaye noonu nag ñu ngeen koy gisee ci nit fii gis ngeen ci wañuy caaxaan nit ki bëgg ko ab waykat ki bëgg ko ab nangam ki bëgg ko ila axiri yoo xamante ni daanaka bëgguma sax di ci joxe ay misaal parce que yooyu dafa dafa yées trop waaye ngir nga xam ni rek maanaam ngir yii gaar ñenn ñi lii la iblis nag comme saay-saay la jumtukaay bi élément bu baax la pour mu yàq da cay jëfandikoo su ko defee li ñuy tuddee al wuddu nag moom ci boppam mooy nobel nobel nga xam ni nag kenn ku ne nag war naa fexe bala muy sëye kenn mu nopp ku góor bala muy sëy ak ku jigéen na ko nopp loolu lislaam jàngale de bu dee bëggante nag moom wax naa la moo leen di jur moo tax yent biñ ko laajee ci mbirum bëggante dane lam yura lil mutahabayni mislu nikah ñaar ñu bëggante moom gisuma ci lenn lu lu raw bëggante googu mooy bëggante ki ngir bëgg sëy gisuma saafara su ma su mën a saafara seen jàngoro ju dul mayante leen loolu mu ngi sunan ibni maaja lam yura lil mutahabayni mislu nikah ñaar ñi bëggante utaluñ leen solution lu gën a gaaw mayante leen ñu sëy amal wuddu nag yonent bi sax dafa digle ndigle la ci xam ngeen usul yooyu dañuy wax ni ndigle bu bàyyi ko ci yàlla ko yonente dañuy jàpp ne lu war la ba keroog ñuy gis lu ko tegg ci war yonente bi dani xayru nisaikum alwadud alwalud almuwaatiya almuwaatiya ila axiri alxadis baat bi ma ci soxla mooy alwadud ku nobe jigéen ñi seen jigéen ñi bokk na ci jigéen ñi ci gën mooy jigéen ji gën a nobe baatab nopp nit ñi ñoo ko garaawal comme ni ma la koy waxee waaye nekkut lu aay lool nopp mooy gis nit koo xam ne xemem nga ko bëgg nga ko pour mu nekk sa borom kër xemem nga ko bëgg nga ko pour mu nekk sa soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam baat bii di al wudd da koo tànn ci jigéen mooy takk jigéen joo xam ne nopp nga ko gis nga li gën a mett mooy takk jabar joo nëbut wala ñu may la jigéen la jëkkër joo nëbut gis nga kooku doo ko sëyal sax doo ko sëyal maanaam yow da ngay da ngay forsanteeg sa xol da ngay forsanteeg sa xol di forsante léeg-léeg nga dégg ñu naan jigéen du bëgg day miin loolu c'est faux loolu ay waxi kese la loolu amul de loolu amut loolu ay wax la rek ahan kay jigéen day bëgg da nga naan kay daa xamul woon mu dem ba mu yàgg mu xam waaye mbirum bëgg moom du bëgg day miin déedéet ahan kay sëy moom boo bëggut bu ci dugg doo jur sax lu baax maanaam sëy moom boo bëggut est-ce que xam nga ni lekk-lekk sëy nit ki mën naa dem ba ak njabootam màgg parce que day àddina répercuté wu ci seen kaw te cosaan la jàngatkat yi dëgg buñ ko xoolee ba ci biir dañuy gis ni moom dafa bëggut parce que boo bëggut doo joxe sa xol te boo joxewul sa xol doo meeg sa borom kër te boo meegul sa borom kër doo ko mën a jural lu baax moo tax lu lu lu doy waar la loo xam ne bal ngërëmal yàlla lan soxla ci biir doo ko mën a am te it ki ngay bànneexal ndax bànneex ba ak jaamu yàlla la mënoo bànneexal koo bëgg moo tax sama xaritu papa doomam laaj sama doomam di jaay laaj ko mooy cousin cousin cousine seen affaire yooyu déedéet yooyu moom bu mu dugal kenn ci say moom moom kay nan ko bëgg rek not ko mu not la teyit nag boo ko nobee te nobu la it bu ci dugg maanaam nobel gi day bàyyi koo ci ñaar ñëpp wa jaala baynakum seen diggante yàlla mawadda waxul kii nob kee kee du nob déedéet kenn ku ci nekk day nob sa morom yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ni bokk na ci li gën ci jigéen ñi mooy jigéen joo xam ne ci nobaate lay doon tey am doom teyit mën a dëfal borom këram teyit di ko mayum péex te it di ko may am ci kon am na solo lool jigéen mu tàggat boppam ci bunt bii ndax nit ku nekk du ñàkk koy bëgg léeg-léeg nit mën nga kaa gis nga bëggal ko sa bopp loolu day am léeg-léeg nit moo lay gis bëggal la boppam léeg-léeg ngeen gisante bëggante loolu yàlla moo koy def waaye bëggante gamay wax nag nga xam ni moom laa soxla ci buntu bii man mooy bëggante goo xam ni fas yéene sëye ko waral muy nobel wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma est ce que xam nga ni góor gi la nopp moo lay yërëm góor bu la nobee te forcé mu yërëm la loolu xaw ma ndax règle boobu xam ngeen ko la def góor bu la nobee faw mu yërëm la te forcé maanaam nekkul moom mooy kër yi benn énergie pour pour yërëm la déedéet énergie bi bi bi mu lay yërëmee automatique lay doon ci yaram bi parce que nobel moo koy waral gis nga jigéen bu la nobee faw mu yërëm la sàmmal la sa alal gis nga jigéen bu la nobee dootul yéene boppam geneen góor gudut yow jigéen bu la nobee dootul yéene boppam geneen góor gudut yow gis nga góor bu la nëbut dalay seexlu góor bu la nëbul dalay seexlu loolu nag boo seetloo ba ci biir nag mbirum nobante mbir la moo xam ne dafay bàyyi ko ci ay xol mbirum lislaam li may wax ni lislaam la ndax dafa bàyyi ko ci njàngalam yonente bi alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg li tax ñuy foog ni mooy tax nit di nobe góor ñi bokkule wuñ ko jigéen ñi bokkule wuñ léeg-léeg nga dégg ko ni diw de xaw ma lu mu gis ci jëkkëram bi xam nga nit ñi dañuy société Sénégal dañuy faral di wax loolu parce que da nga ko nëbbul moo tax nga wax loolu yow léeg-léeg nga dégg ko ni diw de xaw ma lu mu gis ci jabaram bi fekk da ko nëbbul moo tax mu wax loolu waaye moom lam te gis ba tax mu dugg te moo ko xam loolu nattukaay boobu moo lay wan ni kon góor ñi tolloole wuñ ko jigéen ñi tolloo wuñ ko xam na koo xam ni kii lee moo ko yitteel ci jigéen kii lee moo ko yitteel ci góor kii lee moo ko yitteel ci ila axiri kenn ku ci nekk ak la la la ngay xoolee moo tax benn borom xam-xam day wax ni wax ju am solo nee na qad yakunu al jamaalu ahyanan naqisa bu dee li ñu tuddee taar te taar sax benn définition la boo xamante ni léeg-léeg nit ñi li ñuy wax ni loolu mooy taar ak njàngalem l'islam ak borom xam li ñuy wax ni mooy taar bokkuñu léeg nit ñi li ñuy foog ni dëgg dëgg dëgg mooy taar du loolu mooy nekk taar ci waxtu wu nekk buntu boobu nag damay ragal ba ci duggee mu jàddal ñu ala kulli xaal li nekk taar ci diw daal mën naa bañ a nekk taar te kete des donte am na loo xam ne nit ñëpp ñoo ciy dëppoo léeg-léeg nit ki sax mën naa ñàkk taar moom ku góor ci te du tee ku jigéen ci bëgg na ko ca noonu noonu bal sax noonu la ko bëggee léeg-léeg gis jigéen joo xam ne mën nañu daa ñàkk taar fekk moom loolaa di taar te ka ko bëgg parce que taar li ñuy tànnee taar nattee taar bokkul ci góor ñi su ko defee ndax bëgg akuk nobel yoo mi wayu sën dafay takk ay nopp ba dootul déggati lu dul diw takk ay bët ba dootul gisati lu dul diw léeg-léeg nag mbëggeel mën naa dem ba jàpp la jaam nobel mën naa dem ba jàpp la jaam moo tax di ci am contrôle baax na ci trop da ngay gis koo xam ne li ma doon wax tànk dem na ba xolam moom diw lay jeneer diw lay xool bi dem ba daanaka sax nag wala ayaasu billah ay jaamu yàllaan sax doo ci dootu ci mën a concentré wu xëy na loolu nag li ëpp ñu muy gaar mooy nit ki balaa muy am borom kër waaye boo xësee am borom kër ba noppi moom yëf yi day wàññeeku ak loo bëgg bëgg sa borom kër ak loo bëgg bëgg bëgg sa soxna mbir mi dootul àggat dimension boo xam day lore parce que nit ki ci mu bëgg te jotagut te moom kam nopp te jotagut te moom muy ko góor ci muy ko jigéen ci loola da koy jural fitna laa ci noonu nag laay sukkandiku wax ni jaadu na kenn ku ca nekk ci jigéen ñi mu bàyyi xel bala muy tàbbi ci néegu sëy nga xam ne néegu sëy dafa xat lool te it la ca nekk ci ay difficulté dafa bari trop te it faw nit ci bu duggee ci sëy yéenem moo war a nekk sëy ba xëy dee xam nga loolu jigéen ñi niñ ko defee woon ndam ci sëy démb tey defatuñ ko ndam noonu am na benn jigéen dañ koy nettali ca kaw ga nee nañ daay sëy si mu ñëw ba romb miiru armée bi ñu mu ni fii fan la ñu ne ko fii mooy miiru armée bi mu jonkan jooy ñu ne ko loo jooy mu ne damaa xam ni saa su ma génnaatee sama kër borom kër fii laa ji xam nga kooku moom parewut pour fay moom saa bu ma génnee fii laa jëm maanaam fay ak tas bu njëkk nit ñi dañ ko defoon gàcca ci wàllu aadal waxuma sax diine suñ société bi rek dañ ko defoon gàcca goo xam ni man xam naa ñoo xam ni koo xam ni famille dañ ko wax ni ko bu yeboo moom bu ñuy jonkan sa kaw bopp bi sax muñal ndax boo payee rek askan liñ bokk yaa ci njëkk a fay ci jigéen bi mu xam ci wàllu taarix xam loolu dafa grave loolu boo ko waxee ku am mbañum rus akum jom kooku day muñ ba bëgg dee kon sunu famille moom xamuñu fay kon yow boo payee rek yaa ci njëkk a fay yooyu ay xeeti wax la yoo xam daf daan soulager nit ki delloo ci waat ko defal ko ba tax mu gën a góorgóorlu waaye loolu lépp nag diw dañ koy takk gis nga de baatab takk xam ngeen takk ah xam ngeen takk takk laa baatab takk rek laa wax takk mooy yeew yeew ba mu dëgër waaw ki lay takk moom bu amee yërmande dana ca baax ndax boo bëggee ñu tekki la nga tekkeeku te it ñaareel bu lay takk mu takk la takk bu simple moo tax gis nga baatab wolof bi ci boppam boo ci defoon ak seetlu rek di nga gis ni mbir mi lu garaaw la kon jigéen ji ki koy takk na ko nopp na ko bëgg na am yërmande ci moom yeneen bi alayhi salaam mbir mi yeggoon na ba ci bu nit musaana dikk ni ko gis naa jigéen te loolu insha allah dinaa ci ñëwaat ci bind yi di ñëw da koy laaj ndax xool nga ko ndax xool nga ko déedéet xooluma ko de muy demal xool ko ndax waa lansaar seen bët yi dafa am lu ci nekk ndax neex na la am déet te noonu ndax it nit ki war nay xool ci mu bëgg moo xam ci ay jëfam moo xam ci jëmmam physiquement moo xam ci yeneen yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nit ñi danañ ca nattee loola lislaam maye na kon ñu bàyyi xel ni mbirum sëy ak jaamu yàlla la waaye nag nekkul comme rab yi dañ koy defee rek nga xam ne amut soit amut dara da ngay jékki-jékki rek ñu daal di yëkkatee may nañu sa sa sa doomu doomu di xam bu njëkk loolu danoon am waaye loolu moom wax dëgg yàlla ña ko doon def ak mbaax lan ci bi waaye dañoo juum dañoo juum da ngay jékki-jékki yow tax ba tàkkusaan jot nga julli tàkkusaan ba noor dem ca wallu wa di wal na waa Dakar moom xamul loolu wallu wa mooy fa jigéen ñay dem ba machine amagut fa ñuy jëm di dëbb di wal dugub bi fanaan lay fekk ñu ne wuy sa baay nga ñëw toog ci néegam mu ni waxal sa yaay ne la préparé dama lay maye tey yow yëgoo sinon xamoo kin lay may tey dan lay may nga dem sëy ah façon yooyu daana am te it nag kéemtaanu yàlla moo ci am moo tax gis nga nit ki même li muy def su baaxul sax waaye ñàkk xam moo ko ko yóbbee wala te borom bi soo nar na koo dimbali léeg-léeg yàlla mën na koo dimbali mu tombeeg taw fii ndax am na ñu ko defal ñoo xam réussir nañ ko de donte nag waree du ko def nag ndax njuumte la parce que dañu war a bàyyi nit ki mu tànn suwaam ba bëgg waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom ci njàngaleem mooy dañuy bëgg nit ki ñu laaj ko ndax bëgg nga wala bëggoo te loolu insha allah dama koy junj ndax lim am alaqa ak buntu bi waaye danaan gar spécial boo xam ci loolu lay wax mooy ku mag ci dañ koy laaj waaw tawa yow kii ñu la nar a may ndax bëgg nga ko wala déet su dee ko jigéen ci moom mën naa am kum gis bëggal ko boppam proposé ko boppam wala mu proposé ko ay way juram ku góor mën naa gis ku jigéen proposé ko boppam wala mu yegg ci ay way juram te yooyu yëpp insha allah tafaafile dana ñëw waaye lu mën ci am daal sart bañ ci njëkk a soxla mooy nobel na am moo tax suñu borom ni wa min ayaatihi bokk na ci kéemtaani yàlla yi an jaala lakum mu defal leen min anfusikum ci seen jëmm yi azwaajan ay soxna li taskunu ilayha ngir ngeen mën a am ak dal ci ñoom wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma suñu borom def ci seen diggante nobel ak yërmande gis nga aaya jooju boo ko tadabburee nga seetantal ko kon dalay wax ni nobel égal yërmande gis nga nobel saa bu amee yërmante am gis nga góor mën sa nopp jabaram ba mu pare te du ko yërëm loolu mënul nekk loolu moom ay règle la yoo ay norme la yoo xam nii la moom amul sens bi dëgg la nag soxna si mën na laa tooñ wala mën naa dugal sa xol tey wala nga am la naqari wala nga ci fekk du tee la fi ne woon mu nga ngeen régler ko mu jeex ngeen continuer waaye góor goo gis yërëmu soxnaam xamal ne nagu jigéen joo gis yërëmut borom këram xamal ni nagu waaye góor boo ko nobee da nga koy yërëm jigéen boo ko nobee tamit dañ ko yërëm gis nga nobel googu mën naa dem ba sëy bi tas te nobel gu di jeex li la war a ne lu mat a bàyyi xel la parce que du mbir mu simple mën naa dem ba sëy bi jeex te nobel gu di jeex kooku mën nañ koo joxeel ñaari firnde benn bi yonent bee ko nettali alayhi salaatu wasalaam ci xadiisab abu zara ak ummu zara ñaari jigéen wala fukki jigéen ak benn ñoo toogoon xam nga jigéen ñi rek ñoom seen gémmiñ ñi sañ wax la kenn ku ci nekk di wax jëkkëram nu mu mel kii naan sama jëkkër nii kii naan sama jëkkër kenn ku ku gën a wax lu gën a sànnee ko rek nga ni kële la nga gis koo xam ne moom nee naan sama jë- jëkkër moom mu ne zawji sama jëkkër laxmu jamalin gas ala jabalin waar sama jëkkër daal man de su ma leen ko doon misaal mi ngi mel ni yàpp gileem gu màggat ñu lakk ko ba noppi aj ko ca kaw montagne ba yow yàpp gileem bu màggat yàpp gileem ni mu dëgëree gileem gu màggat ni mu soofee ñu lakk ko pare aj ko foo xam ne bala nga caa jot da ngay yéeg kat lay jaral yéeg loolu mooy wane ni maa si jëkkër ji dara baaxu ko noonu la ñuy continuer kenn ki mu ne man de sama jëkkër bu ñëwee ci kër gi day faaxar faaxare di fuñ fuñ yeeg di jéem a gaynde gayndalu te bu génnee sa waay moo gën a nooy muus contraire bi am jeneen jigéen mu ne ah déedéet man nag sama jëkkër moom bu génnee gaynde lay doon waaye bu ñëwee kat nag moom ku sedd lay doon ci kër ka mujjee mooy ummu zara ummu zara amuy nag toog leen nag ngeen déglu ma wax leen kuy sama jëkkër moom xadis la bu gudd maa ko talxiisee noonu mu ni man damaa bokkoon ci askan woo xam ne amul dara sama jëkkër abu zara jëlee ma fa jox ma ba may bajam jaaroy përëm laa daan takk nee na takkal na ma jaaroy or ba saa nopp yi diis gan damaa yooyoon ba waw koŋ daf maa yafal ba saa ndomboy baat yeeg saa ndomboy ndigg yi siggi xeeti alal nag moom luy takkaay am naa ko luy alal am naa ko di lim di lim di wax di wax di wax di wax ba ba ni xaj bi abu zara am ci kër gi sax damaa neex man ba dama koy toppatoo moo tax ci ci xadis ba bokk na ci sukkandikukaay yi ñuy sukkandi wane ne gis nga jigéen bu la bëggee ginaar gi ngay yar ci kër gi sax da koy bëgg jigéen bu la bëggee dëgg dëgg dëgg dëgg ginaar gi nga yar ci kër gi sax dala koy yarale pour bëgg bëgg ko mu tagg ba tagg kuddi ci waaru abou zara marmet ba kuddi pour tet ya tagg lépp lu ne ci kër gi ba taggaale xaj ba yàlla natt ko jëkkër ji wàcc ko ñoom problème jëkkër ji fase bi ko jëkkër ji fase nee na mu am beneen jëkkër bu ñuy wax Malick nee na jëkkër jooju comme kële wala sax boog moo ëppale kële alal waaye nee na gis nga kii li mu am lépp boo ko boolee benn dankab Abu Zara ma ko gënal xam nga ko doyalagut ndax xoolal kii li muy am am am alal yow moom préféré ne maanaam li mu am ci alal bu doon ay milliards benn dankab ceeb bu ko Abu Zara a jox nee na moo ko gënal ba mu nettalee ba yeggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk Aysa la woon ak yonent bi yonent bi daal ni ko maay Abu Zara yaay Ummu Zara waaye nag maa gën Abu Zara ndax Abu Zara wàcc na soxnaam te man du ma la wàcc ba xabaar boobu moom bi ko Aysa déggee defe naa keroog moom ba mu ne la waroon naa mën a biddanti moom ndax ku dem ba sa borom kër waxal la loolu wax dëgg yàlla loolu lu neex la mooy du ma la wàcc loolu nag moom lu rëy rëy rëy la la ci jigéen kon kooku ak bëggam des na beneen jigéen a ngi nii benn waaye bu ñuy wax rifaa soxnaam dafa amoon ak moom problème ba mu wàcc ko ñetti fàtte ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndeke ndaw si dese nag nobel sa ku góor ñu baada zawjin la war a doon ñu may ko keneen may ko jotagu te yegg fenn man xam naa daf koo may ndax may leen nag mu am ay problème fa mi am ci biir ñu tasaat sëy ba ñu tas sëy ba ndaw si yàkkamtee dellu si waat jëkkër ji njëkk ji ndax kon lii nekk baada zawj bi xabaar bi yegsee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi dane ah jot ngeen a ànd ci say yéen ñaar ñu bees ñii mu ni déedéet mu ne ko kon du mën a nekk baada zawj fekk ndaw saa ngi yàkkamti dellu si waat ci ko njëkk ji ngir ay mbir yoo xamante ni ndaw sax gaaral na ko yonente bi alayhi salatu wasalaam kon ci gàttal bëgg ci boppam àgg na mën naa àgg nit koo xam ni même bu doon borom këram dafa paas dafay suur góor gis nga nobel mën naa dem ba yegg foofu nit donte nag bëriwut lu muy faral di am nag waaye dinay am bëggeel mën naa dem ba yegg foo xam ni ku jigéen ci su borom këram faatoo day suur góor yooyu nag comme am na ci xulaaso boobu laay tënkee wan leen ni kon jaadu na jigéen bi mu mu asaaloo boppam saa bu tolloo ci am borom kër na teey bu baax a baax ah ay kii nanga xam nga nekk jàmbaar ci ay jaamu yàlla taxut ci buntub nopp ñu nopp la déedéet maanaam ci jaamukatu yàlla bu mag la jotewut ak mbirum nobante dara dëgg la nag mën naa nekk luy luy xit nag ki nga xam diine la bëgg mën naa gis ko jigéen koo xam ne jaamukatu yàlla bu mag la loolu xëcc ko ca wala ku góor koo xam ne jaamukatu yàlla mu xëcc ko ci ku jigéen bi waaye nag bi maanaam maanaam nit ki macha allah moom jaamukatu yàlla rek nga bëgg ko ngir loola yëg leen ni jamono ji gën a sell mooy jamonoy salafu saaleh te ñoom daawuñ tànnantee ci buntu nobante noonu dëgg la nag am na ñoo xamante ni ñoom loolu moo nekkoon seen sart ci tànn ah am na jigéen jigéen ju ju jàmbaare juñ doon xasanatu ku rafet lool sax nga xam ne xasanatu mooy lu rafet ci arab benn xaritam la ne ko waaw xasanatu yow lu tax ngay célibataire ba léegi mu ne damaa gisagut góor gi ma bëgg ñu ne ko gan góor nga bëgg mu ne góor guy jooy di ma jooyloo di julli guddi di ma yeemay julli di jàng alxuraan di ma jàngaloo alxuraan di woor ba tëg di ma woorloo mu ne xaritam yi góor gu ngeen gis mu mel nii nee leen na ñëw am na jabar góor gu ngeen seen muy ñëw te melut nii nee leen ku la dëpp gàccaam la fii fekk xam nga kooku kon am na tuwaay yu mu doon tànnee waaye nekkul ni chaque jour tamit yooyu soit la ñuy tànnee ci nit ñi nit ki mën naa gis jigéen xëy na da nga koo nopp xëy na taar baa ko waral xëy na askanoom bokk ko waral comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wasallam xëy na leneen moo ko waral yàlla moo xam ala kulli xaal yooyu daal su fekkente ne nii la mbir mi demee yëg leen ni bëgganteeg nabante lii la ci lislaam jàngale jigéen nag bëgg nañ bala ñu koy dugal ci biir néegu tey mu nopp xam na la tëyal góor it kadaalika mu nopp ku jigéen yii nag saa bu amee nag nobante saa bu amee nag waa léegi nag première pas taxaw na pour sëy léegi nag jéego yee ca des insha allah mooy nekk dara yi di ñëw ñu dugg ci beneen bunt mooy buntab labat labat xam ngeen ne labat moom ni ñu koy faral defee du noonu fin koy jaaree du foofu nin koy defee du ni ak yéen koy jox du yooya kon faaw buntu yu mel nii ñu jàngaat ko xam lan la ci lislaam jàngale lii la ci yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngale te it nag buntu bëgg lislaam bàyyi ko noonu rek kenn ku ci nekk gisee ko lu la neex kon defe naa loolu moo nekkoon bindab tay bi xëy na waxtu yooyu ñu def moo tax ñu gàttal ko noonu ala kulli xaal jéego bu njëkk bi kon am na ci alxayaatu zawjiya saida pour ñu mën a am dunduk biir kër gu neex faaw lay lal tay ba mooy ku jigéen ci na nopp ka koy takk ku góor ci na nopp ka muy takk su loolu amee jàpp na ne jéego yi gënees bu jaaree yoon yàlla mën na leen wërsëgal sëy boo xamante ni xayaatan zawjata saida lay doon di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq dimbale ñu bu baax a baax ba buntu bi ñu bañ ci échec parce que buntu bi boo ci échecee rek li ci def dañ ci échec moo tax génn góor dana wax naan takk leen ci ñi ngeen nopp balaa ñu leen a may ñu ngeen nëbbu loolu la góor gi doon wax dana wax naan takk gaaw leen ngeen takk ci ñi ngeen nopp balaa ñu leen a takkal ñu ngeen nëbbu xam nga wax boobu lu ko indi mooy xam nga léeg-léeg nit nekk ak frère am frère bi faatu ci misaal ñu ne ko ah comme ak suñu société ni ñu def ah tey nga tey ñoo jël soxna si jox ko bii xam nga yooyu ay yoon sentiment donc la moom dëgg la nag mën naa toog di bëgg nobente am fa loolu mën naa fekk soxna si bëgg na ko muy rakk borom këram wala magam wa illa ci diggante ay doomi bàjjen doomi nijaay ila axiri yi ci buntu boobu la doon jàngale di wane ni maanaam loolu bala ñu koy def faw nobante am te moo tax mu ni gaaw leen takk ña ngeen nopp bañ leen balaa ñu leen a may ñu ngeen nobbu mu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq bi ñëw laa wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi jazakumullahu waaw non yaakaar naa am nañ ci tolloog fi kisi ak ñaar aywa naam inshallah ñu jéem a posé question yi xool waaw kii muy dafay laajte ndax nit mën naa nopp nit saa mu bàyyi ci xelam
loolu de leerul
ah mu ne waaw damay jum mu ne ndax nit mën naa nopp nit te ànd ak xelam
ndox nopp nit daa ànd ak xelam waaw moom mu ànd ak xelam ci nopp bu bi muy nopp fekk mi ngi ànd ak xelam waaw ah ku ànd sa kum xel nu muy nabaate
ci jaaxal lool dafa mel ni laaj bi kon def naa leer ala kulli xaal na leen
jàllal ci beneen wala peut être xam naa ku man li muy jàpp mooy li ñu doon wax ci ci début bi li nga doon leeral te mooy nit mën naa nopp ba pare ànd ànd ak xelam ànd ànd ak dal daal laa sax mën na nekk c'est que nobel dafa àgg ci ba- daraja joo xam ni mooy dem bay teqale ni ci sagoom waaye nag du caage ni képp ku nopp rek dañu naan da ngaa tàqale ko sago déedéet mbir mi du loolu de déedéet demewut noonu nit mën naa nopp ba pare am maîtrise ànd ak sagoom ba tey jii buñ ko doxoon te it nag foofu dafa am tomb bu ma ci motoon nag bëggoon a leeral tëb ko mooy gis nga sooy nopp fii ak mayeguñ la ka ngay nopp amal maîtrise parce que gis nga yenn dimension yi boo ci àggee mayuñ la ko mën ngaa def njaaxum moo tax gis nga toujours rek amal loo amal réserve amal fo- fooy mën a yem ngir ëllëg mën nañ dem ba ci biir mën ngaa nopp nit ñu dem ba dox ko dara desul lu dul lu ñu maye leen fekk ni yéen ñaar da ngeen a nàmpandoo te xamu leen ci woon dara affaire bi feeñ te boobaa day xaram te loolu dina ñëw ndax ñaar ñu nàmpandoo mënuñoo bokk mënuñoo nekk jëkkër jabar suba foo jëm te fekk yow daanaka tër nga say programme ba teg mën ngaa nopp nit ñu dem ba ci biir parents yi gàntal ngir ay mbir yoo xamante ni yenn yi moo xam lislaam nanga moo xam lislaam nanga xam nga parents yi comme bu nangoon bu nanguwul ngir loo xam ne lislaam da koy bañi kenn du ko forcé ci buntu boobu lu dul xaw yi te xaw yi amul kon dama li ma bëgg a wax mooy mën ngaa nopp dem ba ci biir gàllankoor am pour éviter loolu yamal limité tak bëgg tak nobel ba bu sottee alhamdulilah bu sottee woon bu dee da ngaa bëgg rek la nga bëgg rek dana gën a yokk bu fekkee sotti wutim nga xam ne loolu suñu borom dogal léegi nag ñàkk a sàmmoon teg règle bii ma wax yóbbee nañu bari ci ñun ay njaaxum njaaxum yi da gis da ngay gis koo xam ne day dem ba ay gàllankoor am mu topp ak nobeelam sax naan nañ dem meer ñu maye ñoog nañ dem nangam ñu nangam ñoog yooyu yëpp ay caaxaan la waaye tey moom way jur yaa koy dox bu dee ba lëj ñu delloo ko sa borom xam-xam yi ñoom dinañ xam xaala bi lu mu laaj wallahu taala
waaw ñu ngi laajte mu ne euh, jigéen ji nga xam ne dafa daanu ci nobel te wa- waajib nopp xamu ci dara wala bàyyi xelam ci nobel boobu nan la war a def moom jigéen ji na muy def wax naa ko mooy yeggeeku ko su dee not na ko saa boo gisee ki nga bëgg buntu boobu maanaam nekkul ni jigéen toujours dafay xaar góor bëgg si ko not ko ahan kay jigéen am nañ choix moom it jigéen dëgg la la nekkoon aslu mooy góor ñëw tànn si ku jigéen ci not ko gaaral ko boppam waaye ku jigéen mën naa gis ku mu bëgg gaaral ko boppam loolu moom dañuy gusur bari lool ci dundu salaf ñu bàyyi ci xel léeg-léeg da ngay dégg ku ci wax rek xadija la ciy joxe misaal am na ñu bari ku ñu jàng siira salaf xam nañ ni jigéen daana gis góor gu baax goo xam ne bëgg na ko comme côté diine la ñuy waxee moo tax may waxee noonu mu gis góor gu ko doy mu gaaral ko boppam amaan na xëy na jigéen moo gën a faible góor ci wet googu lam cay tiit mooy suñ ma gàntaleeg su nangameeg su nangam déedéet loolu la cay nit kii tiit day fekk xëy na ka nga jëm ca moom du waaja jàpp naa nit nag bu jógee bëgg dara di ko gaaral waaw lay mën a dégg mbaa déet surtout rawatina nag balay gaaral ma def istixaara ba pare ko comme dañ koy dénk képp koo xam ne lu leen doon gaar na la muy ko góor wala ko jigéen ku gis moroomam bëgg ko mën na ko ko yegge sariatul islam yi tere buntu labat ci boppam l'islam maye na ku góor ki gis ku jigéen ki bëgg ko gaaral ko ku jigéen ci gis góor ci bëgg ko gaaral ko loolu moo gën nit ki di ko bàyyi ci xolam ndax loolu dafay jur misère ab xol wala laa yàqal lu bare bare bare su fekkee yow ka ngay bëgg sax wala ka ngay demoo yëgul sax lu xew kon lu mel noonu ci mën na koo gaaral te yoon wa ñuy jaar nag waxuma tëb rek gaaral ko waaye yoon wa ñuy jaar ki nga xamante ni borom bi defal na ko tawfiq yi ful lay mën a taxaw wax ay soxlaam taxaw wax ay soxlaam te boobaa ca gën nag waaw doo yónni téléphone doo yónni lettre doo yónni dara da ngay taxaw nga waxal sa bopp sa soxla parce que waxoo bàkkaar am na jigéen joo xam ne loolu day diis te moom su boobaa bu gisee kum wóolu mën na ko koo yóbbante nag ku mel ne Xadija ni sal dina teew diñ koy nekk li xam nga moo bëggoon yéen tubaab salaam waaye soxna na fii sala yónni woon wa illa mu jëfandikoo yi nga xamante ni yooya moom ku ñàkk fexee ko war a jëfandikoo parce que dara du caa wóor muy téléphone mbaa message mbaa lettre te yooyu benn wóoru ci ndax nit mën na caa yem te su boobaa mbir mën naa siiw te wër ta woon a siiw moo tax yii mu ci moom jumtukaay la waaye bañ caa yegg mooy liggéey wallahu taala alam
waaw bi laajte mu ne ndax jigéen mën naa wax ak jëkkëram téléphone ci lu jëm ci wàllu sëy wala booloo même comme si ñoom ñaar ñu nekk
bu dee ci wàllu dagan ak xaraam day xaraamul bu fekkee la ñuy wax bon waaye nag bu dee ci wàllu wattandiku moom mooy tandiku ko mooy li gën ndax xam ngeen ni téléphone yi mën naa am écoute ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ñi xam-xam nañ kon bu dee ci wàllu dagan ak xaraam bu dee li ngeen di wax moom dagan na ca seen daggen seen diggante mën a yoon ngeen ko waxtaan parce que am na yoo xamante ni islam terew ko ci diggante ñaar ñi nga xam sëyoon ba pare bañ koy teree kay mooy ñaar ñi nga xam dañuy labatan sakkante bi kon su ko defee loolu bu dee wàllu dagan ak xaraam moom li ma jàpp mooy la ñuy wax bu daganee dagan na waaye nag ci wàllu wattandikoo moytandiku bañ koo def mooy liggéey misaal niñ ci mën a joxe te loolu xëy na jàpp ma ni sax kuy dund diine dana ko def yi nga xam ne nit ñaa ngi koy def ci internet beeg ci yeneen yi léeg-léeg nit def ko sax ba filmer ko jàpp ni lii yeggul fenn fekk oxon kay yegg na fa ca def am na histoire yu doy waar yoo xam wax dëgg yàlla rut naa ko sax a nekk lii yoo xam ne film nañ ñu ko ci buntu boobu kon yooyu moom bañ koo def mooy liggéey wallahu taala
muy laajte mu ne ndax gannaaw ne mbëgge mbëggeel wala nobel dafa war a nekk ci ñaari ñëpp muy jigéen ak góor euh, góor fu fu euh, góor nan la mën a amee ay jabar yu bëri sa bëgg sa noble
waaw parce que yàlla moo nag xolab jigéen tuutal ko ngir mu yam ci benn borom ko mu yaawi xolab góor ngandal ko ngir mu mën a am lu ëpp benn ci soxna te it nag jigéen mënta nopp lu ëpp benn borom kër parce que noonu norme yi noonu la ko suñu borom monté waaye góor mën naa nopp lu ëpp benn soxna te it kenn ku ci nekk nag nga jox ko la war cak nobel loolu mën a nekk la loolu nag du loo xam ne góor a koy créer pour am ko waaye noonu la yàlla bindee góor yàlla moom moo nag xolab jigéen ngir mu yam ci benn borom kër mu yaawi xol ak góor ngir mu am ay soxna te it sa biir nekkin googa kenn ku ci nekk cër ba nga war a am da nga ko am ndax misaal mi defe naa ñun ay julit lañ amuñ misaal moo xam ne dañ koy jël bu gën a gaaw joxe ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te it yi mënta nekk su mënta woon a nekk l'islam bi ñu wax nañ ko roy ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi gis nga lim amoon ci ay soxante kenn ku ci nekk am nga la nga war a am palaas ci xolam mu def nag nobel ak mbëggeel saa bu amee ba noppi nag pour mu màgg dañ koy togg ndax ay jigéen bu ñu nekkee ci kër di sëy kenn ku ca nekk jàpp naa ni war nay liggéey lu tax mu am palaas ci xolu borom kër maadaama xol bi yaatu na mën naa accepté loolo jigéen du nekk mooy liggéey lu tax mu am ci palaas ci nit mën naa not ñi mu yor ñëpp nag laa wax sax nag mën naa not ñii du not ñeet nag ci nit waaye daal lay tax mu màgg moom cofeel ak nobeel ci xol jigéen da koy liggéey comme fa liggéey ba gën a mettee nag mooy nekkoo yow kese moo tax laaj bi laaj bu am solo la ndax gis nga jigéen bu basé woo ci no nobel bi am ci digganteem ak borom këram rek avant mu koy takk mu ñëw rek yam ci jéemu ci dara dara da bàyyi ko noonu ay moroom daañ ko romb wit la ko waral mooy cofeel gi la koy màggal dañ koy rooti kon kenn ku ci nekk mooy fexe nu mu def ba am place te xol borom këram waaye bu dee ku góor ci moom loolu ab xolam mën na ko am wallahu taala
muy laaj ci mu ne ndax jigéen mën naa nopp góor bu doonu jullit
waaw bu dee gën a nobee dama mën naa nekk ndax comme nekkul mbir moo xam ne yaa jekki-jekki kéré ko da ngay jekki-jekki mu dab la waaye ndax ndax mën nga kaa nopp ak ndax mën ngeen a sëy moom bokkuñu bu dee ndax mën nga koo nopp waaw waaw parce que nobel da ngay jekki-jekki rek sëy mu dab la waaye nag bu dee ndax mën ngeen a sëy nag moom déedéet wallahu taala
waaw muy laaj ci mu ne loolu yan dénkaane ngay jox wala ngay dénk jigéen joo xam ne dafay delloo mbëggeel yi ak wala nobel yi ki ko nopp ndax waajoo du sunnit
ndax kooka du ab sunnit mu ne gannaaw loolu nag ban comportement la war a am moom ci ko moom jigéen ji ala kulli xaal laaj bi dafay dugg tuuti ci buntu labat ndax jigéen ji am na ay normes yu mu war a tànnee borom këram ginnaaw bu ñu xamee ku dul jullit moom waxuñuy waxam moom waaye ginnaaw bu mu nekkee jullit na fexe ba ku tënku ci sunna moo gën loolu nag tekkiwul ni mooy képp ku tënkuwul ci sunna baaxut déedéet tekkiwul loolu de nit mën naa bañ a tënku ci sunna ba noppi fekk ak ñàkk xama ko waral te yor na ay critères yuñ mën a tànnee borom kër ndax ak diin wal xuluq waaye nag bu ñu nee diin sunna tax ndax ñun moom xam nañ ni diine sunna tax lu dul sunna bon na waaye nit ki estoom xam na loolu kon jàpp naa ne ku mel noonu jigéen ji bu ci tolloo mu tànn góor goo xam ne tënku na ci sunna te it du góor gu tënku ci sunna gu nekk it nga jël ndax ni danaa tënku ci sunna ba lépp waaye ay jikkoom def naa rafet loolu tamit ñu bàyyi ci xel tënku ci sunna taxut say jikko rafet ndax loolu beneen affaire la kon daal ci gàttal ki war a nekk sa bàyyi doom néeg ni mu xatee lal ak ni mu xatee bëggante ak ni mu sensible ak fa ngeen war a mën a yegg diir bi ngeen nekk ni mu yàggee di déggoo di yëkkateendoo di wàcceendoo te sa lépp yaa ngi bëgg di ko teg ci feesekaayu diine ba kera ngay faatu seetlu bi ma def daal en tant que koo xam ne am naa fan ci daaw bi donc yàgg gu ma ci waaye am naa ci fan maanaam ñi lu mel noonu gaar ñett kenn ku ci nekk yaa ngi dundul la metti ci ñu ci bari bokk maanaam bu fekkee mbir mi dalaa dab ci sëy sunna dalaa dab rek fi nga ko seqal tënkuwu ca way laa yaa jug tànn ko boobu moom daanaka moo gën a nekk kaweex na sax ndax bee sax moom napp suñu boroom waaye yu mel noonu moo xam góor gee dem ba mu yàgg yëf yi daf ko moom sama moo xam jigéen jéem yàgg yëf yi daf ko moom borom këram gis nañ ci ay difficulté yu bari yoo xam wax dëgg yàlla leen ay nit yoo xam dañuy lay jokk di wax ay jafe-jafe yu metti metti yoo xam da nga leen ci yërëm sax kon su boobaa daal nit ki bu fekkee day tànn na tànn koo xamante ni ku ragal yàlla la ku am jikko ju rafet la waaye mu tënku ci sunna léegi nag ndax ci ñàkk tënku ci sunna yoon kon mënu leen ànd ahan kay ci diina la nekk amaana dafa comprendre gul amaana dafa xamagul yooyu yëpp ndax ñun ñi kenn ku ci nekk am nga foo xam ne ba nga fa tolloo comprendre goo woon kon yu mel noonu nit ki bu fekkee kooka la bëgg ah xëy na naxanteeg moom ba am ca moom la mu bëgg xëy na bu dee li muy woote woo moom sunna si lu mën a leeral la ba kooka xam ko ah loola de mooy la gën waaye nag kuy tànn daal mu tànn koo xam ne yéen a bokk ay jubluwaay loola moom dara gënu ko wallahu taala alam
dara ko waaw muy laaj mu ne ñaari nit suñu nobantee te waay jiri waay jiri waay jiri waay jiri ku góor ki eh, ànduñ ci sëy bi lan lañ war a def
ñaari masala yu bokkul way juru ku góor ci moo ci àndut ak way juru ku jigéen ci moo ci àndut way juru ku jigéen ci àndu ci moo gën a garaaw way juru ku góor ci àndu ci ndax ku góor ci moom ñàkk caa ànd ak ak way juram donte bañ koo burle mooy gën waaye nit ki bu ko burle woon mën na caa bañ a am daanu suñu borom bu dee ku góor ci la bu dee ku jigéen ki nag moom mënta burle fa boobu parce que li ko waral mooy way jura war a may ndax laa nikaaxa illa bi wali sëy pour mu am kilifa mooy may kon ku jigéen ki su fekkee way juram moo bañ rawatina gu góor ga ah su boobaa la gën mooy mu seet nu mu naxtaananteeg ay way juram am nañu bari ñu mu gaar yii saa yow yaa koy defal sa bopp yii saa nga seet comme kilifteef ci famille bi mu ñëw dox ko yii saa nga jokkoo ceeg ab borom xam-xam ndax du masala mu ne da ngay gaaral nga ni nii lañ koy daal di réglé su boobaa nit ki su fekkee am na xàll bu mën a jaar ba way juram nangu de mooy la gën su fekkente ni nag way juram nanguwut bu yebu muñ lañ koy dénk bu muñ te ñaan yàlla ndax tollul foo xam ni wayjur day bañ am ku mën a ñëw fuqar yi kilifteef ga maye ko bu doon ba lislaam di àtte xaw buy am dañ naan jëkkër ji, euh, ku góor ki lan moo tax nga bañ mu ne fi naan kii tëgg laa kii géwél laa kii géer laa ñu ne koy bu ñu fontoo am na diine waaw may ko sa dal soo ko mayul man dinaa ko may loolu xaadu yi mooy wax loolu su la mayee ñetti fan maye woo ko xaadu yi ci boppam mooy maye sëy ba te sëy ba day valable loolu mu am na ci lislaam comme dunduñu lislaam nag euh, dem maire yooyu ñuy def ak yooyu yëpp moom mën naa ñàkk moom la gën daal mooy xaar yàlla
أنت حبيبتي أنت زوجتي